man Sadio laa tudd maa bàyyi Jibi Sadio waaw. Euh, Jibi moom moo génn àddina tout juste bi mu paree examen wala sax avant muy paree exemple euh, ndax euh, lan nga jot a ci information bi nan la demee. non avant mu dem examen c'est les gens ñii dañuy expliquer comme sa avant mu dem examen le biir bi commencé métti deux jours avant examen chaque jour bi dem. Sall damay woo nijaayam laaj ko état de santé am la mel ne ah mu ngi nii dem examen bu examen bi commencé ba dernier jour bi vendredi laa woo nijaayam eh, cousin am ma ne ko jibi nu mu def mu ma tànn na de delluwaate na examen bi dégg nga la foofu la affaire bi commencé ci salle ma ci salle examen bi la affaire bi attaqué ko bu ñu ko doon évacuer juste bala ñu àgg hôpital la suñ borom jëli ko c'est ça que c'est noonu la passé du question malaise parce que damay dégg ñu ne dafa malaise ainsi non dafa ma biir métti avant l'examen à deux jours d'examen la ma woo mu ne sama biir moo métti. Assane euh, jël ko garab andil ko sama jarbaat bi waaw. Euh, mettitu biir bi daf ko daan faral di dal wala c'est la première fois. musuma ko dégg yaayam musu ko dégg musu jàmbatu biir bi métti musul am peut-être mën na ko mais man musuma ko dégg et musuma ko dégg ak kenn si euh, waa kër gi non. même bàjjenam sax musul dégg na ne kii dafa am biir métti c'est que may parce que laaj naa ko biir bi nan la métti day wañaar wala day jàmm wala mu ne ma non non ça mais dafa muy métti comme ça il est né le 7 novembre eh, le 7 novembre 2001 lu fii la commencé jànge Salya Salya def CI ba mu foofu entré en bu ma amee entré en sixième mu def sixième Salya cousin wooma moom ak bàjjenam mu ne ma ah ñu ngi Vélingara kooku ne yónni ma diw pour vacances ma ne ko d' accord ma ko yónnee ci vacances bi sama jarbaat bi ne ma comme man professeur la mu wax ne ko comme moi la bu ma sañoon ma fay sama nijaay loo ma defar ma jël booy bi encadré ko parce que sama nijaay mënu ma ko fay moom ak sama yumpaañ parce que encadré nañ ma ba yàlla may ma lii man daal ma bëggoon delloo lañu jukkal boobu la sama sœur bi ñëw sama jabar dama ñëw jël bagage xale bi dootu ñëw day dem jàngi boobu la ñu ko jëli dem fale cent mille def fa cinquième secondaire bu ma amee bu mu demee cent mille en cinquième secondaire moins de quinze la fa jógee kooku boo laajtee professeur am yaaya jaat yaaya bi yaay te le dira ma sama jarbaat yi macha allah comme noonu la tu continues avec l'enfant y pas de souci noonu la ñuy nekk ba booy bi dem ba am BFEM saamin mu amee BFEM saamin ñu trans moo ñu yóbbu ko Kunkandé mais seconde bi e kii bi e, première boobu kii la ko defee Vélingara terminal la def Koungheul mais boobu bu mu def première e, si soos commercial Vélingara même pour le transfert à Koungheul son son professeur avait refusé dafa ne Assane bàyyil booy bi fii mu continuer mu ne ko booy bi dama ko jël pour encadrer ko mu ne ko. encadré bi doy na fi mu ne nii ñun mën nañ ko continuer encadrer parce que c'est un gosse brillant non mu ne ko déedéet je vais l'encadrer je l'amène chez moi loolu la ko yóbbee Konkande encadré ko booy bi continue c'est comme ça que le gosse a dem ba ñëpp bugg ko c'est un gosse qui partout parce que man mii sa baayam dama dem ba ibayoo dama parce que lu ma gis doon ma dam dama doon jooy mënatuma jooy ndax dama am bànneex dafa am lu génn si man non je ne peux pas te bànneex boobu dama mel ni aw ma ku gaañu parce que mbooloo bu ma gis pour xale bu tuuti mosuma ko gis fenn. ban moment lañ la wax décès bi ak nan nga ko yëgee ba nga ko yëgee loo sant. ah non ça sa doom deux ans trois ans ñu jékki-jékki ñu ne la dee sama choc boobu c'est kooku mënoo ko imaginer. fu la sama bureau la ma fekk buñ ma koy dama daanu boobu man ak secrétaire bi ñoo fa nekk moom jaaxle lool mu woo ñii ñoo jël jël ma jàpp ma andi sama kër parce que affaire bi dafa bris trop si man koo xam ne ne woo nga titooram mu ne la dem na école ñu ne la kooku gaañ na non parce que moi j'ai reçu des appels cinq appels le matin mais ku woo dama ne dafa ma dégg ne ah jibi yaa ngi gëj a dégg bi maanaam tey dem na école mais ces gars ñoom dañuy ragal wax ma. Mhm. ndeke dem moom dee na man je a pas au courant. j'ai un copain moom dafa ñëw vacances moom woo na ma quatre fois mu ngi tourner autour du pot ñema ma ko wax Maguette woo na ma ñema ma ko wax jusqu'à onze heures. benn booy woote kooku nekkoon mais maintenant ma je vais euh, informer parce que ñun ñuy ñëpp du tourner tourner comme ça sans l'informer c'est pas bon kooku moom mooy Idrissa Mansali moom moo woo bu expliquer ma affaire yi ah non c'était catastrophique waaw laa jël sama téléphone informé yaay yaayam yaayam daw ñu seen kër. parce que affaire bi daf ñu jële kaw ñun jëlee ñu feebar boobu ko booy bi day ga day dee ci kii boobu non xalaatuñu ko mais yàlla rek moo xam ñu gërëm ñëpp gërëm ses tuteurs plus sa tutrice ils ont tout fait pour la réussite de l'enfant ça il faut que je le dise ils ont tout fait pour réussir l'enfant ils voulaient du bois du bien mu boole bu baax booy bi mu ne ma koo dox billaa wala talla la bu wala sa doom mu nekk bu ñëwee ko ñu ràññee si monde c'est ce qu'il avait promis et ce m'a promis l'a fait mais yàlla ak mbiram peut-être yàlla moom ma ko gën a soxla man nu ma ko soxla loolu la ko yàlla soxla yooyu ko yóbbu et mun may xëccoo ak sama borom c'est pas possible moom ma ëpp doole foofu mais bu ma sañul sama doom nekk fi parce que moom daf may woo woo kii rakkam yi na le mënuma papa dama la bugg a bégal ren dinaa la andi bac préparer ma sama bajeen bu ñëw nga seddal xoolam kii du ma bàyyi ma fen sama doomu ndaw bi mu ngi ni taxaw awa ba kii ñu ko ne boo ñëwee yow français ngay jàng doo jàng fii loolu la ko xale yi ndaw wax la ne la góor góorgóorlu nga jël exemple exemplaire si man yàlla ah oui trésor la j'ai tout fait pour mes enfants j'ai dit mon enfant il faut qu'il réussisse même bu ma am le kër man mais il faut mes enfants bu ma am amal sama doom benn ak kooku baat naa ko depuis ma nekk célibataire bu ma noree amal sama doomu ak yàlla moo bañ am doom ça je le jure et Dieu merci dama am doom boo xam ne ni day jooyantu yor ma yàlla yor mais le peu que je li ma fortaatu sama njaboot laa ko yóbbu du koy fenn bu dul sama kër loolu laa ñaan yàlla yàlla loolu la ma jox saa yi bu ma ko ñaanee loolu na ma ko jox ma yóbbu ko si sama njaboot comprendre fu mu nekk xiiful maarul foofu jamais musul musuñ ko laal dóor amul musuñ ko maltraité te tout le monde ay kontaan ñëpp bàjjenam daf ko uufoon mais plus que moi bàjjenam bu mu ko téyee moo mu ëpp loolu si xale bi tout ce qu'il moom la ko jox dañ ñëpp ne la yow xanaa kii moo mooy rek ma sa doom il voulait la réussite mu ne bugguma am gàccee si doom sama mag xam nga dégg c'est parce a tout elle n'a rien mais elle a mis tous les moyens pour que booy bi réussir moom woo na ma mu ne ma préparer ji maa ngi ko gunge moo ko gunge ak fierté ba jënam mu ne ma xam na ne ji ren dina am bag déjà résultat yi génn mu admis d'office te fekkewu ko elle n'a les épreuves yi sax jeexul parce que c'est professeur la ñu ma ñu ma c'est pas le résultat eh, bac la ñu séntu si moom non mu eh, kii bi mention la ñu doon séntu si ñoom. parce que xam nañ dañ waaw loolu la ñu ma wax la ñuy ñun mention la ñuy calculer mais c'est pas le bac. Mm-hmm. il est il est ami de tout mm-hmm. parce que village bi Vélingara Samin mm-hmm. ba Konkande ñëpp a ñëwoon ses collègues élèves yi kenn mu leen a tey ko laa ci mën a jibi sama na ñi nekk ñi mu bokkal équipe de football foofu nawetaan mm. ñëpp ñëw ñu ne ma papa yow ñàkkoo ñun ñoo ñàkk ma ne la effectivement jibi doom ñëpp la doo sama doom doom sénégalais yëpp la mm. doom adduna yëpp la et je suis très content que le monde entier parle de mon franchement ça c'est une fierté pour moi je suis très parce que am na ñoo xam ne bu ma la nee sama doom la ba léegi gëmuñu ko est-ce que c'est mon fils ma ne c'est fils on pose la question c'est le fils de ton grand frère ou de un de tes parents moi c'est mon propre fils gëmuñu la sama doom parce que déjà imam yi fa nekk yëpp ñoom dañu ñëw rek ñu ne ma de côté kii suñu doom la ñu on va de lui wàcc nañu ko kaamil ñaari yoon macha allah waaw franchement mu la fi eh, contente bi mu fa am yàlla rek a xam waaw loolu kese la mbokk aussi taxaw nañu ma il ma gërëm leen je remercie sama koro yi plus mes grands frères qui sont là et qui ne sont taxaw nañu ma taxaw bu rafet ak sama rakk yi yëpp mun mhm. ma leen fay yàlla rek mu am seen pay ak sama xarit yi. Mhm. kenn depuis affaire bi am kenn nelawut mhm. kenn toogut ñu ngi si jaabantu sama kër ñu ngi woote chaque minute ñu woo ma tous ceux qui sont à l'extérieur mes enfants mes mes yëpp ñu nekk extérieur ñu nekkoo village partout ñu ngi aussi sama waa village au secours. Gassama ma ko gërëm bu baax taxaw na ma taxaw mbokk ma ko dara man woowuma ko sax jabara moo ko mu woo jabara mu ne neel Ousmane bu génne foofu dërëm xaalisam baalu moo ko ko man ma na lépp na ko bay si sama loxo et je le sama yaay daan na ma ne Ousmane boo génne bu sa morom wutee xaalis wutal la doomu adama mooy sa trésor et elle la raison maa ko gërëm bu baax muy si bàmmeelam maa maa ngi ko gërëm bu baax a baax ñu ñaan yàlla ñi si des dimbale ñu si ñooñu ñooñu pour ñu suul ñu ñu bañ leen suul parce que man loolu laa préféré sama doon suul ma comme man ma suul sama doom kooku ñaan ma ko bu ma sañoon man ma waroon dem place bi xale bi moom mu continuer ak rakam yi mais yàlla maa leen di gërëm di leen sant ok merci beaucoup. Sira Biaye. Eh. moo gaañ. Ah, Massa ñu ngi lay massawu bu baax ci eh, eh, ki nga xam ne mooy Sadio ci bi sa digganteeg moom boo ci doon dellu si. Naby Sadio nekkoon na xale bu baax nekkoon xale bu ma déggal jox ma cër respecté ma ba muy gën a nekk xale boobu mi ngi am ay cinq ans su déggee automatique sax daw dem tuuri ma jàngal ko diine moom laa ko njëkk dugal ba muy dugg alxuraan boobu mi ngi am trois ans mm-hmm. bu paree rek dem jàngi su wàccee ecole dem alxuraan ba benn jour maa ngi ne oustaz bi yow kii dama ko jox mu jàng wala day jàngale mu ne ma daf may jàppale dafa mun jàngale nekkoon xale bu am yar lu siggi xool kenn kenn kenn mu mel ni euh, jàmbaar la woon école waaw wane na ko ndax euh, vendredi sax le matin maa ngi nettoyé bibliothèque bi ma gis table d'honneur mi ba mu nekkee sal salle primaire am yàlla dogal sax même pas dix minutes papa woo ma. ma wooyee xaw ma fu ma ne dama génn dama daf ma ko wax rek juste sama benn collègue ñëw fa ma génn mu ne ma lan la ma nekk sama doom moo dee sama sœur ñu ngi dëkk à côté ma daw dem fëgg leen après ñu ànd ñëw suñu kër ndax awma ma fenn bii rek laa amoon fu may dem ndax daf ma bett. Mm-hmm. lan ban feebar nga ci moom wala boog ngeen yëg ba tey mu gaañu ngeen naan lan moo tax wala man nag yëf yi daf ma bett franchement. ndax papam un jour la sax dafa egg si avant examen ba ne suba la ma ne ko woo nga jibi mu ne ma si déggante nañu dem ma ne ko mais woowaat ko comme demain examen la mu ne ma d'accord ma dégg ko mi ngi wax ak ñoom téléphone après mu paas ma ko ma ne ko jibi lan la mu ne ma non dama amee biir bu métti mais mi ngi wax correctement ma ne ko soo xëyee nga naan lem nga jàng alxuraan julli mu ne ma d'accord matin temps balaa papam di dem mu woote mu ne ma yóbbu nañ ko sax jàngi na lendemain même chose papam woote waat ñu ne ko jàngi na troisième jour sax je me papam ne ma ñu ne mi ngi toog ak ay moromam xam nga kon kooku na ngay ne sant mm-hmm. vendredi dégg ne dee na onze heures e quelque. nan la ko. loolu lu metti lu métti waaye dañ koy sante yàlla. dañ koy sante yàlla. ñoom ñëpp laa yar ñoom ñëpp laa yar moom ak rakkam yi sax ñoom ñëpp ci diine laa leen yar. ñoom ñëpp ci loolu laa leen yar mais nag yàlla bu dogalee mënoo ci dara. Mm-hmm. mu mel examen yi jeexagul ñu wax ni admis na d'office. Mm-hmm. at mi boobu mu def en tant que candidat ci examen yi nga xam ne ku nekk yaa ngi toog ci nen actuellement yéen parents yi loolu ñu yëg te nekkatu fi bànneex boobu dama sentir. sentir naa ko trop sentir naa ko benn côté sax moom ma soulagé moo ma soulagé. lu fee mu at mhm. deful ñaari matière parce que prof SVT moom daf may woo rek. Mhm. ISEGO bi aussi même chose ñu ne defu ko ñaar yooyu daal la deful. ñu sant yàlla. est-ce doon def. non non elle. tey sama ngay wax ak ñan ngay kenn kenn kenn kenn kenn ñu mhm. njëkkee sama boroom kër ndax benn dafa bëgg a njaboot dafa bëgg a njaboot doom yëpp privilège mës yóbbu bañ na ba du fay ay deux mois un mois day fay yëpp am na benn année Saldia moom mi sama mu koy ñu koy laaj nga fayal ñetti xale ñu koy laaj ndax si yow si gouvernement bi la ne. ndax dafa bëgg a doom ba ci doomam bu mujjee bii da ko fayal ba fin avril parce que ñi feeb jànguñu mais daf ko fayal ba fin avril ba muy inscrire doom daf ko jaral lu ne doom daf ko jaral lu ne man it yar bi ma samay waajur yar loolu laa jox samay doom ndax man tamit dama fekk sama famille ñu am yar ma ne loolu laa woon sama njaboot loolu laa leen woon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn yaayam laa parce que maag yaayam ñoo bokk ndey ak baay magu yaayam laa. Mm-hmm. nan ngeen yëgee décès bi ak euh, fan la la fekkoon. waaw décès bi niñ ko yëgee xanaa metti rek ndax moom ma fekk sama kër ma xëy nii toog xëy jour boobu sax sama yaram bi yëpp daa xaw a tayal mooy vendredi matin bi. Mm-hmm. noonu ci laa dem toog sama salon toog toog toog ba yàgg rek. sama sœur bi ñuy ne amee bi yaay daal may woo ba ma wuyoo mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi nii sama kër mu ma demal kër Sira léegi léegi léegi lu may wut kër Sira mu ne ma dem fa léegi léegi léegi rek ndax neexul ma ne ko neexul waaw wax ma lan la ma ne ko ah di ma ko wax de mu daal ne ma neexul nag jibi moo gaañu ma ne ko ban jibi mu ne ma Djiby Sadio waaye liggéey na ci man keroog yàlla rek moo xam dama sànni portaable bi daanu ni damay génn dem sama bon bi jàpp ma sama doom bu jigéen bi fa nekkoon ñoom ñëpp jàpp ma noonu ci laa jóg ba xaw a dallu mu daal di jóg sangu gaaw gaaw daal di tegu ca yoon ba. ban yaa ngay fàttaliku boo seet ak Djiby ak Djiby ni mu meloon ci sa gis-gis. waaw ji bi bi mu nekkee xale da daan ñëw sama kër avant muy dem Vélingara da daan ñëw sama kër ànd seeg rakkam ju jigéen ji ju ñu naan awaa booba awaa tuuti la mais vraiment bu ñëwee mook sama doom yi kafagre kafagre ba ni mu demee nii nag euh, Vélingara bi mu amee befe moom ñëw na vacances bi mu ñëwee dama dégg na ñëw na rek ma ne xaar ma dem seeti ko jour ba mu ba ma demee di ko seeti fekk ma fa yaam fekk yaam wàccagul mu ñëw jóge jumaa sax ànd ak cousin am ñu jóge jumaa ndax moo cousin bi ñëw ànd si ñëw vacances ma ne ko jibi de yow laa seet si damaa dégg na ñëw nga rek man a xaar ma ñëw seet si la mu yéete amas noonu mu kaf ak man ree ak man noonu mais kaf ak ree rek laa ko xamal ndax daan waxtaan comme mag vraiment man daal am nañ lu ñu metti daal waaw lan taxaw waaw taxaw bi taxaw bi aussi may gërëm papaam hmm. ndax pàppam booy wax pàppa ji mooy pee ndax pàppa ji taxaw na ay doomam ñu dema dema dem ba jibi muy génn àddina di wax dëgg yàlla metti na ko mais taxaw na doomam ndax keroog bi ñu waxee ci guddi googu ñu egg ñu ne ñu kaay leen ngeen dem morgue ba dem xool ko ba ñu eggee gis nañ ko mais metti na torop papa ji nag dëgg la ah, metti na ko trop mais par la suite dal na ndax gis na mbokk yi Vélingara defe naa ne keroog ñëpp benn kàddu mhm. ci xale bi ku ñëw benn kàddu ngay wax yaru na baax na boo ko yónnee mu daw dem kaf ak ree ñi mu doon defandoo bag bañ leen indee ñu toog boo leen gisee sax wax dëgg yàlla sa àddina tukkee sa yaram daw kër gi bëri nit kër gi fees nit kon mun naa ne ñëpp jàpp nañ bokk ci la bokk moom daal xale bi daa teel sotti daal ndax macha allah bu dee étude macha allah bu dee xel mhm. macha allah bu dee lu ñu ñun soosey dañ koy ne xanaba di yaa xamu nuñ koy wax ci olof waaw mooy bëgg nit daal bëgg nit xale bi def na ko kon nag looloo tax fi mu ne nii daal affaire bi du gaaw a dañ ñun nag de du gaaw a dañ ñun metti na trop metti na mbokk yi nag di leen sant di leen gërëm parce que tey ay mbokku papaam macha allah ay mbokku yaayam macha allah. kon nag ñoom ñëpp jàpp ci ñaan ñëpp jàpp ci ñaan gi kon nag ñun daal xanaa am lu ñu metti rek yëf yi kenn mënu ko wax moom jeex daal ndax xale bi yaru na baax na jox na ñëpp cër man dama ko daan vocal ak chaque fois ba vocal bu mujj bi mi ngi nii sama portable moom papaam daf ko jënd portable jox ko ko mais cousin bi day jël portable bi pour mu bëgg mu jàng su ma xoolee ma xam ne nekkul en ligne su ko defee ma ne kii de xam naa dañoo nangu portable bi loolu yëpp bëgg mu jàng rek waaw su ma ko vocalé ji mbaa yaa ngi góorgóorlu amal jom nga góorgóorlu de mu ne ma non tamas bul xalaat dara bag bi dama koy décroché dama koy dagg ren damay ñëw dakaar xale bi nii la ma koy waxee toujours waaw saa yu ma ko vocalé rek loolu la may wax saa yu ma vocalé ji bi loolu la may wax mook samay doom tamit di vocalante di wowante di nemmeekonte moo tax sama doom bu jigéen bi daa jooy ndey ma ba démb ah. fi mu nekk ne ci Jurbel dañoo mujj nangu portable am am bi daan mujj nangu portable mu ne ma ndax mi ngi nii di jooy rek kenn mënu koo téye démb bi ñu dañ bi ko wàccelee kaamin foofu ba pare dañu wàccee kaamin teg añ ñu añ ba pare rek ci la nouvelle bi ñëw ni am na kër gi mel ni luy xarati ñëpp di jooy kenn mënatul téye sa rongañ mhm. kenn mënatul téye sa rongañ kon nag man li may wax may magu yaayam ma bokk ak yaayam ndey ak baay mm-hmm. yaayam di suñ caatu yaay dama koy ñaan yàlla rek na gën a muñ mu góorgóorlu ndax neexul neexul na gën a muñ mu bës xolam mu bës xolam xam naa ne metti na torop